liggéey liggéey mucc ayib et tey aujourd'hui nekk nañ tey coalition boo xam ne tey ci biir Benno parce que Benno tey aujourd'hui am na sous coalition mais ñun ñoo ñun fës ci mhm. sant yàlla la alors ngeen nekk coalition ngeen nekk biir Benno Bokk Yaakaar ay at lan moo tax euh, mois de mai boobu ngeen jàpp ni jot na ngeen taxal beneen coalition si biir coalition bi waaw c'est vrai que dañ nekkoon Benno ci biir at euh, cee at mais bu ñu fàttali ci biir coalition bi daf ci am ñoo xam ne nekk ñoon bennoo mais dafa ñoo xam ne dañ dañ nekkoon ci beneen coalition parce que ñu si ëpp dañ nekkoon ci coalition diisoo diisoo mooy kii ma nuy wala suñu frère Mour Diagne Fada ñooy créé woon benn coalition mais après dafa am ñoo xam dañuy bàyyi dem créer seen beneen beneen coalition tombeex Pape Modou Fall nekk directeur de l'emploi euh, depuis 2021 donc ensemble ñu créé la parce que gëm nañu ni tamit dañu waroon dugg ci biir bennoo indiwaat encore lu ñuy wax benn rajeunir ko parce que coalition euh, républicaine dafa nekk pratiquement composée de jeunes et yooyu tey dañu nekk ci biir coalition bi pour gën a ko may doole gën ko ëpp indiwaat yenn taxawaay yu yees te itam boo wax léegi tamit ci loolu lañ taxaw di ci nekk loolu aussi moo tax ñu créé la coalition républicaine pour accompagner encore une fois le président Macky Sall ngi euh, si jiixi jaaxa jëm si élection présidentielle ba tey xamuñ kan mooy booy mooy doon seen bër. waaw c'est c'est vrai que yéen mu ngi ko tuddee jafe-jafe. Mhm. mais ñun xam nañ jafe-jafe amul. dafa fekk ne ki ko jiite mu jiite réew mi muy président Macky Sall nekk aussi président Benno Bokk Yaakaar moom moo am timing am moom moo am agenda am parce nag bu ñu fàtte am xam na lu ñu xamul ñun te le moment venu dinañ jox la candidat maintenant nag léegi des nag léegi ci biir a mën a tey ki nga xamante ne moo jiite moo jiite Benno le moment bu joxee candidat bi ensemble ñu mën liggéeyandoo ensemble parce que ñun au sein de au sein de la coalition Benno euh, au sein de la coalition républicaine suñu candidat c'est Pape Modou Fall

mais yow boo xamee ni njiit réew mi kii xam ne jot na nekk ci bopp réew mi. Hmm. avec parcours am yëpp daf ñuy accompagner maanaam tànnul candidat rek dem toog. dafay tànn candidat bu noppi ànd ak bi gën ko xelal gën ko dooleel mais itam jox ko ay yoon. mais kooku comme donc en principe le candidat boobu nekk candidat boo xam ni timing am day day compter maanaam maanaam c'est pas un novice ce sera quelqu'un boo xam ne am na parcours Sénégalais yi nañ ko xam jënam am bu parcours bu leer dina am un vécu kooku bu ñëwee du def loolu encore une fois mën rek rejoindre. li li xam ne moom la ñëpp di xaar moom mooy solidarité bi générosité bi et aussi une manière une ñëpp mën a moom ensemble liggéey pour une victoire mais loolu loolu la en réalité mais man am naa yaqin ni le président Macky Sall le moment venu a ci topp et aussi di ñaan yàlla sénégalais yi ñu joxee choix boobu itamit ñu xam ne waxtu bi ñu toll ñu éviter di fal njiit pour fal njiit moo tax waxtu bi ñu toll boo la xoolee parce que dafa nekk un cas exceptionnel ki nga xam ne tey dafay dafay génn mu jiite réew mi du nekk candidat et comme nekk candidat nag maintenant moo war a jamono bu ñu tollu foo toll gis ku nekk bëgg nekk njiitu réew naam njiitu réew kenn du ko jàng mais nag yàlla minimum boo xam ne njiitu réew dañ xaar ci moom donc encore une fois di woo Sénégalais yi que ñu xam ne ni candidat bi ñu war a tànn président bi ñu war tànn bi yoon na nekk président bu am xam-xam bu xam réew bu xam état ba pare xam askan bi ba noppi aussi xam ni ñuy téye état loolu c'est pense que ci bennoo la am et aussi donc di invité sénégalais pour que le moment venu ñu jàppale ñu. yaa ngi naan bennoo euh, ak sénégalais yi bopp ndaxte jamono ji li ngeen moom mooy. multiplication des des des candidatures euh, ci biir Benno Bokk Yaakaar naka ngeen def ba juboo si benn nit. waaw loolu loolu parce que aussi xam nga li ñuy wax euh, boo créé ñi créé parti dafay am des fois dañuy toog parce que képp kenn créewul parti par exemple tey ñu kenn créewul parti pour topp ci gannaaw nit kenn créewul parti pour topp ci gannaaw parti li ngay def li ngay kay mooy xool ki ngay àndal pour ensemble ngeen mën doo ngeen mën a atteindre seen objectif donc ci biir bennoo boo xoolee en place ñi yëngatu ci bëri waa APR la et même pour man sax c'est l'occasion ñu wax def waa APR nañu góorgóorlu te xam ni dañu ànd a seedee nawle tey li ñuy def ba nekk bëgg nekk candidat ci biir APR boo defoon allié bu nekk bëggoon jóg te nekk candidat dina mettre trop ci ci njiit réew mi donc ñi nga xam ne day lañu ku mel ñun tey parce que ñun tey dañu yore suñu parti bopp bu ñu neexoon tey def suñu candidature day métti rek def suñu candidature duñ def lu encore une division donc ngir gën a mën dalal njiit réew mi li gën a rafet mooy ñu nekk si njabootam xam ne dañu war déglu seen kilifa ndegam ñi nga xam ne bokkuñu ak ak euh, ak moom parti ñoo ko ñi nga xam ne si njabootam lañu bokk. loolu seen loolu seen émission waaw mën am bëgg-bëgg wax ko en politique loolu mais aussi foo ñu def aussi la différence entre ki nga xam ne ne bëgg-bëggam xam ni bëgg-bëgg bi wax rek la mën a mais ku ko waxoon tey mu avancé du ci mën du ci mën dem dem sori parce que loolu mooy faire la différence entre les ambitions ak les prétentions il faudrait pas que ñu jël suñu prétention bëgg ko teg suñu kaw suñu ambition fi ñu toll nii affaire njiitu réew du affaire caaxaan affaire jiite réew du affaire caaxaan et ku nekk xam nga nag parce que li ñuy wax orof Njaay nee xam na bopp antan et aujourd'hui ku ci nekk xam nga li nga mën ak loo mënul et c'est l'occasion aussi ku si nekk nga ranger waat moo gën ñu bañ def ay lobby bañ def ay prétention bañ def ay chantage ci kaw njiitu réew mi parce que dans tous les cas aussi li ñu li ñaan mooy bennoo toogaat fi bennoo gañewaat pour mën a accompagner encore une fois les Sénégalais par rapport au chantier yi nga xam ne président Macky Sall teg na ko pare. candidature yi mi ngi bëri si biir Benno Bokk Yaakaar tudd nañ ko léegi APR euh, daanaka moom moo ci ëpp kàddu yi nga xamante candidat yooyu ñu ngi koy yëkkati ñu ngi koy dégg fan yii yëpp euh, bu ñu jógee si APR euh, parti socialiste Jean Baptiste Diouf génn na ak déclaration AFP génn na ak Sarr aujourd'hui est-ce que mën ngeen fexe ba ñooñu ñëpp retrouver wu si benn nit est-ce que Benno mënul dem fas yéenewul dem ci ay candidats yu bëri. alors xam nga fu mu toll nii bul fàtte fixe Macky le président Macky Sall joxegul mhm. donc ku si nekk libre nga nga cëppi cëppi nu mu la neexee waaye nag boo cëppi cëppee ba président Macky Sall ne man kat tànn naa Assane Gueye mhm. foofu nag nga gis ni ku ci nekk Assane moom dina dem waxtaan ak yow pour ñu am le consensus fort parce que aujourd'hui aussi bu ñu fàtte on ne pas simplement avoir un consensus mais on cherche avoir ce qu'on appelle un consensus fort autrement dit faire liggéey bi aussi jox la parce que aussi politique aussi à un moment donné il faut aussi ñu xam ne ni comme ñun tey coalition républicaine coalition bu jeune la donc il faut aussi ñu xam ne jeunes yi jeunes yi à leen loxo parce que mënoo bëgg a ba pare bëgg a sa avancement avec avec les mêmes hommes mënut a nekk parce que réew mi ñu nekk tey aujourd'hui moo nekk réew moo xam ne tey dafa laaj indiwaat lu yees tegaat lu yees mais aussi ànd ak ay nit yees et loolu fondamentalement tey aujourd'hui mën nañ xaar ci candidat bi bees bi bu bees bi et puis Sall na ko jox orientation yi pour que kooku bu ñëwee mën topp loolu et ensemble aussi ñu mën liggéeyandoo pour l'intérêt du Sénégal nga jàpp nga ne bu njiitu réew waxee rek ñëpp si lopp waaw man xam nga man xam nga man ci ci dama si jàpp ngëm dama si jàpp éthique man politique dama si jàpp ngor pour man politique bu su ngor jeexee rek bàyyi def politique parce je peux le dire je n'ai aucune responsabilité dans l'état donc pourquoi ñu accompagner président Macky Sall hmm. parce que dañu gis li mu liggéey donc nit ba ànd ak moom aussi man euh, nit ba ànd ak moom dañu ànd moom ci ngor rawatina nag ñi nga xam ne président Macky Sall tey moo tax ñu xam leen donc ki nga xam ne président Macky Sall moo la signé décret xanaa nag wax dëgg yàlla bu demee bay dem war nga war nga war nga rafetal euh, demam ba tax ne bu la toogee na la kat man li ma gis mooy ànd leen diw pour ngeen jàppalante liggéey def benn say pour man loolu di nga ko def loolu aussi mooy ngor politique na aussi les gens disent que ci àdduna politique aussi dafa egg ba àllaaxira parce que àllu askan boo ko lekkee di nga fay di nga fay yoon ma xiyaam. Hmm. di suñu gan di njiital euh, parti bi di APE nekkit euh, ki yor euh, kaddu coalition républicaine sàmm suñu réew bu ñuy wax actualité jamono ji bokk na ci mbiru Ousmane Sonko mi nekk ci kaso ba ak ak xiifalu ñaxtu bu muy amal ba tax na sax ay intellectuel yu Sénégal ak yu bitim réew daal di bind ab xaatim di ñaan ngir ñu génne ko foofu mu nekk ndax jamono ji njiitu réew mi def benn acte. Ousmane maa ngi koy Ousmane maa ngi koy marsawu ci fu mu ne kenn yéenu ko kenn ah, xëy que dafa bu teer bi dawee santul Sonko donc man war na wax Sénégal yi tey na la sant xanaa mu daxalante ko rek Ousmane Ousmane Sall alors bu ma jógee ci euh, ñi nga wax sànq les soi les soi-disant intellectuels parce que yàlla na tuddee intellectuel. ay intellectuel lañ nag man li ma jàpp si intellectuel mooy koo xam ne ni dégg parce que waxam dafay laal dafay dafay layu biir buy wax li muy wax da koy teg ci loo xam ni kat ku ko dégg ne ki kat ci xam-xam la waxee waaye intellectuel du wax ngir benn nit parce que intellectuel du xalaat du xalaatee pour benn nit di xalaat pour l'intérêt moo tax ma intellectuel yooyu jàppee ma comme intellectuel dama jàppee comme ñoo xam ne c'est des politiciens bi te bëgguñu wane seen bopp mais am na am na benn nit boo xamante ne yoo xamante ni nit ñoo xamante lu leen daal Sénégal yëpp lay daal waaw loolu dëgg la parce que lépp loo xam ne dafa daal benn Sénégal ak ku mhm. ñëpp mhm. wante nag yow boo demee ba nekk intellectuel banaan da ngay wax xanaa war nga mën wax ci yéen yi nga xamante yéen tey tey man tey honneur la pour man ma toog ak yow parce que xam nañ ni au cadre nga ci liggéey liggéey journaliste bu baax nga ba ñu rax sës si ana intellectuel yooyu pourquoi waxuñu ba ñu rax université intellectuel nga xam ne tey dañ jàngi dañ jàngi université ba génn fa nekk universitaire pourquoi waxuñu lu nga lu tax ñu bàyyi ba tey ñu wax intellectuel pour doxee noonu pour man intellectuel buy wax dafay wax loo xam ne ku ko dégg xam ne kii kat waxam bi parce que loolu boo ci génnee rek li nga def yëpp lépp la ba mu des des une réflexion intellectuelle. mais intellectuel rôlam alerte si la bokk waaye boo xoolee euh, sa askan sa réew am loo xamante ne boo jàpp nga ne bu jëm buñ si buñ buñ si jugul mën na jur jëye te bu jur jëye dina laal démocratie bi ju yoon la ñu alerter. waaw ils sont dans leur xëy na xëy na maax yow il faut ñu déggoo ci leen mm-hmm. définition wu intellectuel. Mm-hmm. pour man intellectuel mooy koo xam ne ni parce que jàng jàng nasaraan ba am see am see li njaasa taxul nga nekk intellectuel. pour man nga jàng alxuraan ba am sa lijaasa taxul nga nekk intellectuel intellectuel mën nga bañ jàng dara mais sa xel day rafet loolu xelu intellectuel la sa xel day màcc ci leen nga rafetal ko parce que sa xel màcc dara ba noppi boo koy wax wax ko safaan ah, du intellectuel tur yi ñu gis ñu signé am nañ xel mooy mooy mooy ma kese xeen définition bi xeen mhm. parce que man tur topp ma tur mhm. man li may topp jëf laay topp mhm. parce que intellectuel si jëf la du si tur intellectuel du si du si jàng du si diplôme donc li may xool est ce ñoom li ñuy wax est-ce que jëf ji méngoo na xalaat mu sell bi parce que intellectuel xalaat mu day sell parce que war nañ mën sax jël waxtu bi ñu toll ba nga xam ne tey xale yaa ngi jël mbëkk mi war nañ indi xalaat ne xaat bi kat xale yaa ngi jël mbëkk bi kat la loo xam ne boo ko waxee nit yi nii lii lañu mën def pour ñu bàyyi mbëkk mi mais boo ko deful nag di wax ay waxu benn nit dama jàpp ni lépp nga doon ba mu des intellectuel est euh, am na ñoo xamante ne bu leen yor waree topp bu fekkee na yëgal réew mi mën naa ci rek sama loxo est-ce que man doo man en politique doo mere nit parce que ma jàpp ku nekk da nga da nga am sa liberté ku nekk war nga def sa choix li nga nekk wane ko man damay politique je mais ku politikul ba noppi bëgg a wan nit ñi que politiku ma alors que au fond yaa ngi politique pour man loolu sax du sax rôle intellectuel donc en réalité man loolu laay jëkk jàpp donc donc pour man euh, fondamentalement il va falloir que maintenant ñun ñëpp ñu déggoo ci dara ku nekk li nga nekk wane ko journaliste nga vous êtes journaliste. prendre position n'est pas forcément de la politique. non un du

fi nga teg mépp mu neex benn nit lépp nga ne lépp ngay def ba mu des waxu intellectuel donc loolu man loolu mooy sama gis-gis loolu mooy li ma jàpp encore une fois di encore képp koo xam da nga naan intellectuel nga nga maandu parce que intellectuel aussi day bu hmm. xamante ni jàpp nga ni moom mooy dëgg xam nga nul naa la monopole nul naa la monopole de la vérité. Hmm. moo tax intellectuel war a maandu. Hmm. war a juste di wax loo xam ne bu ko waxee ku ko dégg xam ne kii di mu wax ni kat waxum xel la. waaye doo xam par parloo loolu la ñu xaar parce que waxtu bi nga xam ne tey université bi ñu ko ñu loolu intellectuel bi waxoon dama naan kii li mu wax jaar na yoon parce que fii kat pour xam-xam la fii kat xam-xam bi kat pour ku ñëpp la bañ la xee sës si ñu waxoon dama naan lii jaar na yoon parce que sës si pour ñëpp la donc mais nag nit koo xam ne dafa toog xiifal wax dëgg yàlla pour man intellectuel war na mën xalaat leneen ba mu des man tey ma toog pour woor te man man man sax tey am naa envie woor xëy na soo naa woor. non mais buñ ne buñ ne euh, euh, euh, bu buñ ko kiiyee foofu est-ce que du du du simple ba ba ëpp parce que buñ ne nit ku xiifal rek ce n'est pas n'importe qui. Mm-hmm. on parle de démocratie on parle d'opposition on parle d'une personnalité bu bu yi bokk ci ñu gën a rëy ci ci ci opposition bi loolu lu ko dal day laal démocratie. waaw xam nga image du Sénégal da xam nga xam nga en fait est-ce que waxuñ sax pas pour le pouvoir mais pour l'image du Sénégal. xam nga image Sénégal. li ko li ko mën ternir. Mhm. yaakaar naa ne kii ko ternir. Mhm. moo toog xool xool njiitu réew bi ne ko kii kat nañ ko fekk ci pale ba génne ko fa def ko comme Samuel Doe xam Samuel Doe ñu ko dañ ko rey dog dañ ko rey dag dag dagati ko kooku moo koy kooku moo koy ternir l'image de la démocratie kii bi ko ternir l'image l'image de la démocratie mooy ki xool xale yi neen dem la ngeen xeex yi boo leen deewee seen yaay juraat donc ki fi toog te aujourd'hui mu jiite réew mi dafa defar image yu démocratie moo waral ba mu waree def nii wii nii noonu ku nekk yaakaar na indi candidature am wax wax candidature mun ne kat man damay méngoox sama kàddu ak samay jëf nekkuma candidat kooku daf fi nekk pour defar la démocratie kooku daf fi nekk encore une fois pour teg ñu war góorgóorlu pour téye ko képp ku koy yàq ñu ñëpp ñu ñëpp def benn say parce que kenn war yàq réew parce que aussi képp ku fi nekk da dem te aujourd'hui président Macky Sall mi ngi dem ñu la fi bàyyi donc on n'a pas intérêt di jàppale ak ku mun doon pour ñu yàq réew mi parce que réew mi après tout ñu rek la fay desal te man dama gëm Sénégal dama bëgg Sénégal et Sénégal ka war ko yàq Pape Djibril Pape euh, euh, li ay di jàmbat bokk na ci wàllum mbëkk mi jamono ji muy gën di tar euh, doomu Sénégal yi di si gën di dee sànq ba léegi yaa ngi naan na njiitu réew mi defar réew mi la def mais est du tontu bu négatif bu ko ndaw ñi mhm. mais man dama jàpp ni mbëkk mi bul fàtte d'abord ku koy def ku nekk sa initiative bopp ngay jël mhm. am na xam naa ni boo mënoon jox million dama demoon mbëkk ji dama mbëkk ji mhm. sama volonté bopp la et maa ngi déglu temps passe maa ngi xool temps passe benn reportage boo xam ne dama gis benn père de mu toog mu ne doomam yi ba ñu ñëw pour dem mbëkk ji tàggu nañ ko mais kooku bàyyi doom dem mbëkk ji ba génn àdduna mu toog ne état bi la est loolu état am na ci loolu état amu ci bu ñu fàtte il faut aussi ku si nekk aussi à un ñu xam ne ni doom boo ko da nga responsabilité doom boo ko juree am nga ci moom aussi àq ak yelleef te ku ci nekk na xool say acte aujourd'hui mun jël lépp teg ko doo le dos de de l'État pour man boo nekkee ci réew dangay xool yow loo mënal réew mi mais pas xool toujours lan la réew mi mënal et loolu aussi aujourd'hui lañu ñu war a conscientiser encore une fois la jeunesse wax leen ni bu leen dara tax génn bàyyi seen réew parce que amuñu lu ëpp seen réew dans tous les cas lépp loo amaat sax ci réew jàmbur ala ko leen foog indiwaat sa réew nga ko indiwaat donc si si tu as la possibilité toog sa réew màggee fi tekkee fi def ko dina metti nag parce que man mi doxee tey ay jamono nekkoon naa fi maçon ma ngi wax ay jamono nekkoon naa fi benn benn contractuel tey aujourd'hui maa ngi si sama yoon rek donc dara met li metti day metti parce que àdduna nit ak métit ñoo ànd mais il savoir encaisser pour que ëllëg booy amee dara nga am ko daal di dijite te man loolu laa gëm fortement. encaisser eh, eh, ah, noppiwaale ko pour nga def ko faaw nga gis loo xamante ni eh, mën na dalal sa xel mais est-ce que du ñàkk xel mu dal ñàkk espoir boobu moo tax ndaw ñi di di di jël mbëkk mi. alors yaa ngi naan mbir mi mënut a nekk état mais responsabilité partagée la am na lu mu ci moom loo xam da a am na loo xam ne il faut ñu nangu ko mooy ndaw boo ko nekkee da ngay fixé objectif yow te avant nga nekk avant nga nekk journaliste ba nga commencé jàng dafa benn période boo a doon il jàng doon ma fixer objectif yooyu donc aujourd'hui il faut que ñu waxtaan waxtaanu priorité waxtaan waxtaanu sensibilisation pour les pour parce que man mi doxee yow dama waxtaan dafa euh, waxtaan na te temps passé rek y a deux jours ay ndaw man leen la moo tax ngeen am léegi yenn genre réaction yi lu ñu wax rek ngeen ngeen mer lu ñu wax rek ngeen da ngeen frustré ñu ne monsieur ñun suñu bopp ñun suñu bopp xamtuñu xamuñu sax fu ñuy taxaw donc aujourd'hui xam nga lan mooy les sensibiliser les conscientiser mais l'espoir est là l'espoir est permis parce que aujourd'hui tey Sénégal boo demee tey xool les étudiants pratiquement tous les étudiants sont boursiers loolu espoir la yow gëm naa ne man aw ma ko woon man sama jamono aw ma ko woon les boursiers c'était les ou bien les meilleurs étudiants donc aujourd'hui maintenant bi école yaa ngi dox école yaa ngi yokk donte nag matul parce que lépp mënu mate mais ñu xam ni espoir mooy ñu nekk ci yoon et comme aujourd'hui Sénégal dafa nekk ci ci la trempe sur la voie de l'émergence ñu ngi ne en cours loolu nag mooy espoir mais nag léegi xam nañ ni daanu dañu suuf naam mais c'est nànk-nànk c'est c'est petit à petit courage de phrase ni donc nànk-nànk rek ku ci nekk nag naam am na waxtu boo xam ne da ngay bëgg a tey tey màgg tekki tey mais amul parce que yàlla sax defewul noonu àdduna

l'exemple de par la gestion wane l'exemple de par les projets mais aujourd'hui euh, mën nañ fi citer une dizaine de projets yoo xamante ne nguur gi nee na teg na ko ngir xeex euh, lu jëm si wàllu mbënd bi am na euh, plan sax boo xam ne moom lañ mujj mujj a teg ngir xeex ko diggante fii ak 2035 mais ba tey teewul ndaw ñi ñi ngi jël mbëkk mi ça veut dire que Sénégal ndaw ñooñu di jël mbëkk bi daanaka gisatuñ leen lu dul dem ndax te dundatuñ lu lu lu dund bu jar dund. si si seen i kàddu. am na am na li xam ne même ko xoolee tey aujourd'hui imagine le le directeur de l' emploi Pape Modou Fall. Mhm. il a eu au moins à créer 66 243 emplois mais boo xoolee daf mel ni feeñul xam ne dañ nekk réew moo xam ne il y a 300 000 demandeurs d' emploi par an mhm. les écoles de formation at bu ne ñu génnee 300 000 demandeurs d' emploi yow boo dem retraite il faut nga dem ba 60 ba 60 ans mhm. léegi jëlal ki nga xam ne at bu nekk mu génneel mu génneel 300 000 ñu ut xëy bu nekk il faut ki dem ba am 60 pour mën a de pour mën a libérer keneen ñëw toog donc ala ku la gap du chômage nekk fi mhm. donc loolu il faut il faut qu'on soit conscient moo tax en réalité ñuy verser aussi l'entrepreneuriat donc maintenant man nit nag doo ko entrepreneuriat ba noppi di ko seetaan moo waral sax état bi créer lu ñuy wax le secteur informel un ministère du secteur informel du ministère de transformation du secteur informel seulement il faut il faut que aussi ministère c'est le secteur informel ñu weer ñu bëri nag nag nag laa wax mhm. moo nekk secteur informel donc yow boo créé ministère secteur informel ministère boobu itamit da ci war def ay moyens yu mat ministère boobu dem à l'encontre du secteur informel wan leen ni ñuy def kat pour se formaliser et ensemble ñu liggéey pour l'intérêt du Sénégal parce que c'est possible l'espoir est là le pétrole est là le gaz est là mais aussi l'espoir est là il faudrait pas que ñu gëm ni Sénégal mën nañu ko bàyyi am beneen réew mu gën Sénégal on a une nationalité sénégalaise et on sera toujours sénégalais parce que bu Sénégal doom tàq ak foo mënti nekk di nga envie ñu toog fii défendre ko donc mieux nga toog fii ak tes nga muñ